Hallelujah. mooy ndam mooy yow juróom fukki xar yi waaw juróom fukki xar yi waaw sëñ Ba waaw mu ne sëñ bee ko ci boole lii waaw waaw waaw bismillah جماعة أستاذ فضل الغريب عبد السكور فال يا أندوا تقي الذي لا إله إلا ولا يعلم بوادي حول وادي أنت أنت المقيم المعالي المقتدي daam ba pare rek daam ñoo àggale mu nekk lii moo la waroon njëkk sëñ Dame jege si waaw. sëñ Mbacke Ndiaye.

njabootu ke serigne Bachirou Fall bu magma serigne Abdoulaye Fall khalifa serigne Mortala Fall mi ngi nuyu mbolem bokk di len sant di len gërem di len xamal ni ak cantam day liggéey bi ngeen andi won ki yobbu nañ ko ci serigne Touba serigne Mountakha serigne Mountakha jëf ji sant na ci xolam sedna guuy kuy kër Cheikh Ibra bu ñuy liggéey yët ko Serigne Touba Serigne Touba wax ne xolam sedd na wala ñun ñëpp war nañoo doolee fedd liwaat suñu laxasaay di ñaan Serigne Mountakha sàmbaram yàggal ko fi lool dolli ko ak wér ba li mu yéenee liggéeyal maamam mu jëf ko nam ko bëggee tan ànd kook moom Serigne Abdoulaye Fall mii fi nekk nekkal fi sëñ Mortalla it ñu ñaanal ko ak wér ak kilifaam nga sëriñ Amdi Moodu Mbenn ndax ñi fi nekk ñëpp sëriñ Amdi Moodu Mbenn moo fi nekk nekkal fi Cheikh Ibra Fall ah kon liggéey bi njaboot gi rek ñoo fi nekk toolu maam Cheikh Ibra Fall nag moo yaatu ba kenn ku nekk di jëf sëriñ Abdu nag li nga xam ne moom lay dénk boppam di ko dénk mboolem ku bokkal ko sëñ Mor mooy leetar bi nga xam ni sëriñ Mor Talla ko bindoon joxoon ko sëriñ Modou Falilou Fall wax ni ñun kër maam Cheikh Ibra Fall dañoo war a fonk tabaski yi ndax man day gis naa leetar ba waaye ku ñuy wax Abdou Fall ca mag ña moom la joxoon leetar ba turam ma nga ca ca leetar ba wax ni tabaski yi nga xam ne dañ koy dajale yóbbu ko kër sëñ Tuubaa euh, te wëlbatiku duggi am lu ñu def ci suñ kër yi moo gën di tabaski ay xar te yóbbuwuñu ko kër sëriñ bi kon sëriñ bi laa la ma ngi koy fàttali taalibe yëpp bëgg ñu góorgóorlu ci bu baax a baax lépp loo xam ne yàlla dogal na ndigal bàyyi ko kër sëñ Tuubaa ak ci kër Seex Ibra Faal su sañoon de kër sëñ Mor Talla kenn du leen ci jiitu ndax sëriñ Mor Talla sabram defaloon na ko ndimmal loo xam ne nii ku baax ki di Xaadimu Mustafaa moo ko waxoon ne ko waxal loo bëgg ñu defal la ko mu ne teg sëriñ bi ne ko kon ma laa taamul mu ne ko kon ne mbàkke mu jël mu ne ko ab taamul naa la ak taalibi taalibi googee mu taamuloon sëñ moo Talla nag ci la njabootu suñ Mor Talla nekk jenn doomi sëriñ Mor Talla joo gis xam ni ki wut na dara wutul wutul lenn loolu ak taalibi taalibi nag nga koy boolee nangoo diglu ndigal di jëfe ndigal lépp lu nu am day sëriñ bee ko moom yàlla na nu sàmbaram dimbali ci ak man ba waxtu ndigal jóge ñu mën cee jëf bu baax a baax sëriñ bi sant na gërëm na mi ngi sant ay rakkam li ko tàmbalee ci sëriñ daam abdourahman sëriñ abdou sakoor sëriñ badda taala yaasin sëriñ badda assis maam cheikh fall moom sëriñ basiiru fall ak njaboot gi ñëpp mi ngi leen sant di leen gërëm kon nag ñoo ngi soññ suñu bopp di soñ bokki taalibe bi yëpp sëriñ Cheikh Fall sëriñ Cheikh Fall xaadimit mu ngi koy sant te di ko gërëm bu baax nan doolee takkuwaat bu baax a baax te bu baax te fas yéene nag lépp loo xam ne lu waaye di nekk la ñu fas ko yéene jëmee ko bu baax maam Cheikh Fall moom sëriñ Tall am sëtu sëriñ bi mi ngi koy sant bu baax di ñaan ñëpp euh, moom daal ñu ko sëriñ bi bëgg woon te waxe ko ni dama cee lott waaye xolam seet na guy sëñ Muntaxa nag xolam sedd ñun ñoo fa demoon yóbbu liggéey bi te wax na ne liggéey bi xolam sedd na ci guy kon jërë ngeen jëfati sëriñ euh, sëriñ bi njaboot gi ñoo ngi leen ñoo ngi leen doole dénk suñu bopp ak njaboot gi te ñu defal ñu ak man ba bu ndigal jógee ñu mën cee jëf bu baax a baax loolu daal ñoo ngi koy sàkku baax jërëjëf Fall waaw laa ilaaha illallaah